mbokki jullit yi ci Sénégal ak ci àddina bépp maa ngi leen di nuyu nuyoo assalaamu aleykum wa rahmatullahi ki leen di nuyu nag seen mbokkum jullit la seen mbokkum sénégalais la seen mbokkum nit la di imaam Xaadim Njaay di jàngalekatu alquran ci daara jii ñuy wax daaru tanzil nekk fii ci géejawaay ci ndakaaru waaye am kàddu yuñ bëgg a jottali te kàddu yooyu jóge ci am mbooloo moo xam ne mbooloom alquran la muñ xam ci Sénégal ak ci bitim réew muy liggéeyal alquran maa ngi nuyu nag ci turu mbooloo moomu mboolem Sénégal waaye di jiital ci nuyoo bi xulafaa u muy ñi nga xam ne dañoo jiite këri diine te seeni wayjur seeni maam liggéeyal lislaam liggéey bu rëy bu tax ñu toog place boobee kon ñoom kuy wax ci lislaam ñoom nga war a tàmbalee ci ñoom ñu di ca tudd kenn rek mu yóbbaale ñépp muy cheikh Mouhamadunil Muntaqa yàlla na fi yàgg lool te ak xulafaa yi fi nekk yépp ak mbooleem koo xam ne yaa ngi yëngu ci lislaam ci nuyoo boobu itam ñoo ngi nuyu président de la république monsieur Macky Sall mi jiite Sénégal ñu tànn ko ñun ñëpp mu yoreel ñu réew mi te jaboote ñu ñoo ngi koy masawu moom it te di ko ndokkeel ci taxawaay bi muy taxaw te di ko masawu itam ci coono bi muy sonn ndax jiite am mbooloo dafa metti te ku ne xam na loolu gannaaw loolu danoo bëgg ñëw ci turu rabitatul madarisul quraniya fi Sénégal mooy ligue des daara ñu naan ko ligue des écoles coraniques du Sénégal waaye ligue dee daara mooy turam wi nga xam ne euh, moom la baatu arab bi ñu wax di tekki muy daaray alquran yu baree baree bari ci Sénégal macha allah ëpp ay junni junni ñu boole seenu kàddu te daara yooyee mbooleem daara yu mag yi eh, nekk ca biir su suñu ca tuddee daaray Cheikh Mouhamadul Bachir Mousri Habibu nga xam ne daara yu yaatu la yore ci mbulkaay la ci Touba fépp moom mi nekk président bi tudd ci daara yi nekk Touba yépp tudd ci daara yi Fass bu Cheikh Abdoul Aziz Touré ci kër sëriñ Haaji Touré tudd ca daaray kokki tudd ca daaray ndar bu sëriñ Moxta sëriñ Mor Diop ndar kon mënuñoo lim ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir liggéey boobu yépp waaye ci turu mbooloo mii ak ñi ñu jaboote lan bëgg a waxe wax joo xam ne noonu ko jëmee ci xew-xew bi nga xam ne xew-xew bu metti la di ab nattu bu suñu boroom subhaanahu wa taala mi nu bind te moom ñu te sañal ñu wàcce ko di ñu ko nattoo ngir yu baree bari ci ay xikam yoo xam ne moom rek moo ko xam ñu naan ko euh, coronavirus wala ñu naan ko covid 19 euh, xew-xew boobu nag di lu méttee métti dal ci àddina bépp Sénégal bokk ci ñim laal waaye bokk ci ñi gën a war a sant ndax bari nañu mu tane lool doonte néew na doole waaye ni muy néew néew doole yàlla teg na ñu ko ëpp doole la gën a teg coono boobee waaye teewul kon ñépp a metti ne xew-xew boobu nag dafa am jeexit jumu def ci àddina bi waaye fi nu ci gën a jege muy réew mii di Sénégal daf cee indi ay jafe-jafe jafe-jafe ya moo di xam ngeen ne buñ ne kenn ku nekk na toog biir këram bu kenn génnati waxuñu toog biir kër waaye dëkk ak dëkk sax bu dara doxati lu dul lu mënta ñàkk lu teg ci ndigal loolu ku ne xam na ne ci dëkk boo xam ne réew moo xam ne kenn ku nekk boo watuwul wala ña gën a bari dañuy xëy wuti dépense suba ñenn ñi sax dañuy xëy marché ne soxna si bu naajee fekk ma marché nga xam ne dépense tey da koy xëy li lijjanti kon su fekkee ñi ëpp xëyatuñ mbaa ku xëy itam doo gis ña nga fa daan dajeel ngir di ca dàq sa wërsëg ku ne xam ne ne jeexit ju méttee métti dana ko def ci biir réew mi loolu nag buñ ko waxee dee sa jëllale kon daaray alquran yi nga xam ne ba jamono di nuru lu neex doonte mësta neex booba sax ciy jafe-jafe ki coono lañ nekkoon kon ñoom bi lii ñëwee xam ngeen ne dana gën a metti ci ñoom loolee nag tax na ba ah raabita bi la nga xam ne moom la njëkk a jël ci aw yoon wu mu xàll ba yoon woowa sax bari na mbooloo moo xam ne ca lañ mujj dox ndax keroog ba nga xamee ne président de la république dafa wax ne nañu tëj école yi tàmbalee ci njàng mu suufe mi ba ci njàng mu kawe mi booba fi saa si secrétariat général bu rabita bi ak présidence bi dañoo daal di gis ne li jaadu mooy képp koo xam ne sa daara gone yi dañ doon jàng di ñibbi nañ leen wax ñu toog seen kër koo xam ne sa daara gone yi dañoo internet woon na nga leen a wax ne bu kenn génnati bu kenn dugg ba ci wayjur yi gone yi sax mënuñoo ñëw ba gis seeni doom ndax matuwaay yi nga xam ne moom lañu war a jël yépp ñu jël ko ci balaa kenn dugg ci daara ji ci lu mënta ñàkk mu raxasu lool daara yépp ànd ci ba noppi gone yi nekk ca biir toog di jàng loolu nag bañ ko defee gis nañ ne yoon la woo xam ne ñépp dañ ca daal di ànd daal di ñu cay toppandoo loole kon ñu di ko sante borom bi tabaraka wa taala la dolli ko nag moo di dégg nañ ay wax yu baree bari yoo xam ni duñ xam fu muy jóge ñenn ñi ci ay ONG lañ nekk ñenn ci ay ci ay organisation la ñu nekk ñenn ñi ci yeneen yu ñu xamul la ñu nekk ñooñee nag ñu ngi wax ci média bi di wax fu baree bari ñenn ñi di delloo ay gone ci seeni dëkk ñii ne nañ dajale gone yi ci barab yi ñu di fa fekk ak ndimbal ñenn ñi ne daara yi dañ leen war a tëj ñooñee ñëpp nu jàppe leen nun waa Rabita bi euh, jàppe leen ñoo xam ne ñi ca ëpp day xamuñu fi ñuy teg seen tànk li ñuy wax itam xamuñu ko te ku mel noonu nag euh, boo ko mënta ñàkk déglu yi wër ta tax nga geestu dangaa war a wéyal sa dox nañu xam ne waa bi daara alxuraan yi ëmb yëpp li ñu leen di diggal mooy nañu toog seen kër téye seeni gone jàngal leen fegu gi ñu lislaam jàngaloon te docteur yi ñëw fedd li ko fàttali ko ñu gën koo jàpp te gën a yokk suñu organisation yokk suñu cet te toog fi ñu toog jàpp ci suñu borom subhanahu wa loolu mooy li nga xam ne moom la raabita bi di sàkku ci mbooleem ñi nga xam ne ñoo aju ci moom raabita bi nag mi ngi sàkku ndimbal ci mbooleem julliti Sénégal ñi nga xam ne yàlla man loo na leen seen ginnaaw ñu bàyyi xel ne ba dara xewul sax ñoom dañoo jàppoon ci daara yi waaye léegi la raw su ko defee li ñuy jot a dénk rek mbokki daara yi nga xam ne raabita bi mi ngi koy wax ñépp ñu bàyyi xel ne yàlla moo yëngal ay mbiram te moo yor ab nattoom boo xam ne nañ xam ne luy jàll la insha allahu taala bu jàllee dana bàyyi ay jeex itam bi mu ñëwee itam tiitale na njàlbeen gi sax tax na ku amul jàngat da nga gis ne am na position yu baree bari ak kàddu yu bari yu nit di jël yoo xam ne yàkkamti ak tiitaange ak jaaxle moo tax ñu jël ko waaye bi suuf dalee xam nañ ne bari na ci yoo xam ne wóorutoon a demee noona waaye nag ku tiit moom daani kii moomatul boppam loolee nag bum nu jàpp bañ jàpp ne daaray alxuraan yi moom jafe-jafe boobu dana tax daara jóge fi au contraire jafe-jafe boobu day tax daara gën a dëgër ndax ku doon dund ci jafe-jafe ba ñu baree bari nekk ci jàmm nekk ci xéewal kon bu nit ñi ñëwee fekk si la ci jafe-jafe bi résistance bi ci yow lañ ko war a gën a séentoo mun gi ci yow lañ ko gën a séentoo gëm gi ak dëgër loo yàlla gi ci yow lañ ko war a gën a séentoo loola lépp nag dàqonte wut ak ñu yëglu képp ku yor ndimbal loo mën a jëme ci daara yi nga dimbalee ko ci tàmbalee ko ci borom alal yi ñi yàlla dolli do xéewal yu yaatoo yaatu ak ñi nga xam ne ñooñu ñu jaboote muy autorités yi muy président de la république ak ñi mu jaboote dégg nañ ay milliards yu bari yoo xam ne dajale na ko ngir taxawoo ko réew mi tudd nañ ko sax ñetti téeméeri million ak lu topp muy loo xam ne loola moom xëy na dañoo xamul nu mu tudd mu tëddee ndax duñ ca sori waaye loola yaakaar naa ne ñaar fukki daara sax ku leen jox ñetti téeméeri million ak ni daara yi toll ak fi ñu toll ci soxla yaakaar naa loola xëy na daara alxuraan yi taxu koo jóg wala boog ngay wax lañ ni la ñuy wax dañoo xamul séddale ba waaye su ko defee kon loolu duñu jàll mukk te santuñu euh, euh, kenn koo xam ne nii euh, muy Cheikh Mouhamadul Mountakha ndax ba mu yëf yi di door moo njëkk a génn ñaar téeméeri million jox ko ki jiite réew mi jàppalee ko ko ci liggéey bi booba daa mel ni ñu baree bari sax seen xel jàppoon ne ndax lii jar na ko waaye ndekete lu ko ëpp sax loolu jar na ko te teewul ba léegi teggiwul tànkam ci daare alquran yi teggiwul loxoom ci mbooleem ñi nga xam ne ni itam ay yittewoo lañ ak di ca soññi nit ñi di ca def la ñu man kon kooku ñu ngi koy dolli sant te di ko ñaanal moom nag moo uuf raabita bi raabita bi lépp saa boo xamee ne am na jaaxle saa boo xamee ne jaxasoo na ci moom la ñuy dellu mooy wane aw yoon mooy mooy suñu cëslaay suñu diggante ak suñu borom subhanahu wa taala ginnaaw bu yàlla wéyee mboolem lu kilifa war a mën a taxawee ci rabita bi loola mas di taxawee na ko magam yu baaxee ak way juróom yu baax yi doon defee kon yàlla na yàlla fay ko yiw di sant itam nag ci turu rabita bi waaye ci turu alquran gépp alxaaji abdullahi ja mi nga xam ne moo jiite eh, seniko ak ñi nga xam ne ñoom la fa bokkal nekk ndax moom it bi yëf yi di door ba toll fi mu toll def ñoo woo woo yeneen mbokk ne nu mu gën a gaawe boobu weer wii di avril bi jegeegut a teru ndax booba ñu ngi ci diggu mars mu ne dama bëgg nu mu gën a gaawe fii ñetti fan ngeen recenseel ma xool bu mënta dajalit képp kuy jàngale alquran te lii mën ca egg ca moom ka gën a tuutile na am juróomi saaku ka ëpple na am ñaari ton dekkee si lu toll ci cent soixante millions cent soixante millions yoo xam ne lépp ceeb la ko def topp région yi ci Sénégal yépp fukki région ñeent yi fu ci nekk yóbbu nañ fa ñi ci mën a jot ñépp nga xam ne yëf yi egg na ci ñoom jot nañ seen wàll te itam teewut loolu njëkk koo def tey te mi ngi waajal yeneen yoo xam ne incha allahu taala fu mën a joti te man faa egg dana ko def te mi ngi ci woo mboolem mbokki commerçant mbokki homme d'affaires am yi ñu baree bari xam nan seen taxawaay seen digganteeg moom kon moom itam ci turu daara waxuma ci raabita sax waaye ñu ngi ko ci sant bu baax a baax ci taxawaay ñu rafet yooyu di ko ñaanal di ñaan itam ay moroomam ay kemam itam bari lool lool kon fi nga xam ne fi laa bëgg a jeexale euh, sama kàddu mooy euh, ñaan bu may ñaan euh, mbokki jullit yi kilifa yi diine yi autorités yi tàmbalee ci président de la république ñu gën a xoolaat tomb bii nga xam ne en tant que koo xam ne kat dangaa nekk imam booy wax crise bu toll nii ci jàkka yi ak ci jumaa yi mën a wax ba eggal te tuddloo ko loola moo di jumaa yi ak jàkka yi nga xam ne ñoom képp ñoo fonctionneetul ci Sénégal leneen lu mën a doon dañ ko wutal ay pexe waaye nag ñàkkut a loole dañoo bëggoon mag ñi kilifa yi autorité yi ñu xool ban solution lañ ciy jël imaam yi nga xam ne nii yàlla dogal na ci seen kàddu la loolu njëkk a génne ñu joxe xalaatug ne nañ te jàkka yi xëy na tiit ci mbir mi ak jaaxle ci moo taxoon ñu wax ko jàpp ne loolu solution la biñ demee ba yëf yi xaw a dal yaakaar naa ñoom ñu ko waxoon sax wóor na leen ne am na solution bu ñu waroon a njëkkee ba booba tële ñu doog a mujj beer ndax dañoo njëkkee lu waroon a mujj kon weesu ñu dab dabaatal ko waxtaan ak autorité yi ginnaaw ñoo waxoon ba autorité yi fekk si leen ci ñoo war a waxaat itam ba autorité yi fekk si waat leen ci ñu organiser jàkka yi jullit ñi di noddu di dem ci jàkka yi lu lu mbooloo ma néew néew ñu organiser ko di fa jàng alquran di fa ñaan ndax bunt yépp kat tëj na ba des buntu asamaan bunt asamaan nag ñaan moo koy tijji su fekkee jàkka ya ñu war a toog di fa ñaane ak di fa julli di fa jaamu yàlla moom lañ taatil nga xam ne dara yëngootu ci boo déggee nodd sax ne bëri ñu ne la ah jàkka dañoo dañ koo ubbee nga ne dama koo fàtte woon daal di toogaat loolu daw na yaram lool kon su ko defee kon ñu ngi sant bu baax a baax suñu borom subhanahu wa taala te di ko jéggulu te ñëpp war a dellu ci moom jéggulu ko te ñaan ko ndax kat lii nga xam ne indi na ko ab yëngal la bu mu yëngal jamono boo xam ne